dama ne bu leen neexee bu leen naqare li ma dimbali ci kilifa du du jeex du xaaj du jeex maa la ko wax bari na koy wax waxul la ma ko defal man ginaar laa duma topp koy taxani bàyyi koy bojj ndax li ma soxla kii bojj ko yo bàyyi leen nit ñi te jàpp ci ñi leen di jëriñ mais mooy farata yeneentu bi nee na naa fekk ñett la lépp lu mu la wax day fen man Iran mi dafa nga ne nit mën naa wax lu ma déstabiliser ci àdduna ku ko mën man ma xam sama bopp bàyyi ili ba ko ndaw sa waxee muy ñoo fekk mu xiir xaw ma mu dugg di wax ak moom daf na ndaw si boo ma xamul xam na ma bopp <laughs> leerul soo ma xamul xam na ma bopp laa wax tagg boppam doog sumi garamb bi ni ko wékkal ma fee loolu théâtre la mais xam-xam la parce que honneur la ki manul ci boppam dara oola nga yebal say taali bi ñu defaral ku lam bëgg sa alal jiitu ci këram kooku lu muy wax nit ñëw sa programme wax fa lam fayoo nga yëkkati sa alal may ko kooku luñ koy waxal danga am loo wax bi ci des man du ma taalibe kenn de du ko nangu de déedéet man ka may yilif dafa may gën danga may gën àllaaxira bopp sa bopp la li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughni bopp sa bopp rek adduna bi sa bopp sa bopp la ndem taalibe bu amul kenn du ko reconnaître du gise ci biir taalibe bu am balaa ñëw téléphone bokk ak sëñ bi lekk su paree heure bu ko neex lay dem loolu duma ko gis di del sama bopp di ko jox kenn maa lànk yàlla laa koy jox ganaaru kenn nenuma na leer mangal sa baaraam ida xadasa këse ba naafiq lu mu la wax day fen kon foo fekk fenkat booy commentaire ne ko yoon naafiq nga ndax kii ngay wax xamoo ci moom dara lii nga wax yëpp da ngay fen laaj ma ko man mii ma wax la nga dem toppaat ko c'est ça kay xuloo doxul xulool te bu ko wax parce que responsable la te lu dugg ci xolam yàqal ko bu ko nettali dara làmmiñ du lekk morom ma te ñorul bu waxee teg waxal dóor jeex na ay ni ma la soppee man ban cofeel koo sopp doo ko wax lu bon Serigne Cheikh nee na koo sopp doo ko nettali safaan ida xadasa kasaba Ablaay naafiq lu mu la wax day kàcc ida xadasa kasaba te mbooleem bàkkaar yi nag biñ leen dajalee ñoom ñépp di seet ki ci gën a garaaw fene ci gën a xaraam yàlla def na raxmaan ba mu jeex waylun lil xaw ma ban saarati wal mursalaati mursalaati ba mu jeex waylun lil rek lañ koy tëjee maa ngeeg pantre safara boo xam ne fenkat yi laa fay dugal waylul lil mukazzibina maa ngi pantere boo xam ne fenkat yi waylul lil mukazzibina ci wal mursalaati urfan c'est ça isa xadasa kazaba ak jox fausse rendez-vous ba loolu tas yaakaar man mu toog di xaar Ablaye ñu war a ànd ma defiru ba jekk ñu war a départ 4 heures ma sifle ko mu ne anga baal ma bëggoon naa laa woo damaa bëri liggéey ba mënumaa dem fu muy jëlee sëfoor loolu tas yaakaar la wa isa waada axlafa ma dummóoyu xool Ablaye nga am programme wax ak nit muy lu bu heure ba jotee dinaa ñëw ñu ànd ca daam saako ja jaaru fa ah foo jaar sëgg di yàlla te waaye da am sa wàll way sa wax da ax la fa gis nga teel a woote dafa baax te nit bu ngeen xasee fixé rendez-vous loo ko oo wax ko lu dul ban heure la ñuy dem gaañ nga ko parce que reposé na léppam ci say kaw way wax da ax la fa doxul wa iza tumina xaana naa féq boo ko wóoloo ba jox ko sa alal Ablaye ne ma Iran nañu liggéey nañ defar poulailler ba jox ma sa un million dangay ngay toog a toog ma ne fes ñu ne Iran daw naa xaalis ba baa lekk na ko lekk naa ko wa tumina xaana doxul nit ku baax du wor inna allaha laa yahdi laa yahdi kaydal xaa'iniina yàlla nee na Ablaay duma jubal pexem workat yi jigéen ji wor ak góor gi wor ak a ci yam xanaa xamoo gisoo léegi-léegi gis kilifa goo xam ne léppam day yàqu wor a ko ko teg woor baaxul xoolal xew ci réew mi ànd ak parti bi bam neex la nga bàyyi ko dem parti Assane joge sama parti dem bu Ablaye jógee bu Ablaye dem bu Ndooy jógee bu Ndooy dem bu Saaliw yow yaay kan yow naa fekk nga mu zëb bayna dalika la illaa haula wala illaa haula alxuraan mo yàlla ne ne kenn mënu la qualifier fenn maanaam kenn mënu laa féetale fenn kooku musiba la bul nekk naa fekk waaye baaxul est-ce que moytu des koy moytu ayca ba suba ci waxtu incha allah.